jaa ngeen jëfati a mbokk yi woy ànd ak ñun dañu seetaan boole ci di ñu déglu fi ñuy faratal di ñu dégloo ci seen chaîne YouTube bi di Biorahma dee leen ko abone ndax saa su ne ñu indil leen loo xam ni daf leen di jariñ mbokk tey dañu daal di ñëw indil seen savon seen savon Biorahma di samoo goo xam ni daanaka njariñ wa ca nekk yaatu lool soo ko jëndee ba koy sangoo doo ko bàyyi mukk ndax xet woo neex ga am ndax na muy liisale sa yaram di la dindil bépp tâche bépp xeetu feebar boo xam ni mën naa dal der boole ci di la ko préveniral ngir nga mucc ci xeetu feebaru der di la ko leeralal mu yànji lool rafet lool macha moo tax yow mi dégloo ko seetaan bul ko tàyyi mukk fu mu mën a nekk jëli ko ci 77 244 90 05 ak savon bio rahma savon gu sell te naturel. foo mën a nekk ci réew mi mën nga ko am ndax dañuy def livraison à domicile kon yow mi am tâche sa yaram wala nga am acné wala nga am psoriasis wala nga am eczéma su wérulee ci yow la ndax solution baa ngi nii ak savon biorahma jàmbat lu jëm ci jafe-jafe dat jeex na kon daagul nànk ak si si cabinet biorahma 77 244 98 05 mooy suñu numéro téléphone soo ko wootee ñu gindi la leeral la wax la noo koy jëlee savon bii di leer savon bi wóor savon bu yànj savon bu rafet mooy savon bio rahma